jàngoro bu ñuy wax euh, fièvre hémorragique de Crimée kongo dikkaat na ci Sénégal ñu ne fi mu nekk nii nag euh, nemmeeku nañ fi sax ñeenti cas yoo xam ne kenn ka ñàkk na bakkanam bu ñu sukkandikoo si l'observateur ñu ne nag jot na laal ñetti béréb ci réew mi euh, te sax am na ci jur gi yoo xam ne kon fi mu nekk nii am nañ boobule jàngoro ñu ne nag feebar boobu nag li ko waral mooy benn virus boo xam ne mu ngi jógee. ci euh, maanaam ay xeetu euh, kuttu yooyu nga xam ne day nekk kon ci mala yi ñu ne nag ku ko nit bu ko amee yaram bi day tàng lool lool lool lool bokk na kon ci li nga xam ne euh, day mandargaat feebar bi ak it yoo xam ne day génn ci yenn daal partie si yaramam bi ñu ne nag feebar boobu géej na Sénégal depuis 2017 ñu ne nag mi wàllaatee daal dina jóge ci mala dem ci nit ci gannaaw kon bu fekkee ne kutt yooyu di nekk ci mala yi dañ koo matt wala sax gannaaw bi nga xam ne fees nañ benn jur euh, ci saasa euh, maanaam micro boobu mën na ànd ak euh, li nga xam ne moom mooy deretu xar bi wala boog der ba wala yaram wa ministre bu eau ak assainissement di Serigne Mbaye moom nag euh, mu ngi euh, daal xamle ne euh, boo moyewul li nga xam ne moom mooy ay débordement maanaam ndox bu ndox bi ci fleuve Sénégal ak fleuve Gambie mun ne boo moyewul gannaaw taw yu bëri yi nga xam ne am na ci ndox ba mën na génn kon ba sax euh, def ay mbënd ci foofu nga xam ne kon jege na fa loolu nag euh, mu cay artu kon ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ci boobule bor ak ñi nga xam ne dañuy béy wala ñu def yeneen activité te jege li nga xam ne moom mooy fleuve Sénégal ak fleuve Gambie kon ñu leen di artu ngir ñu jël seen matuwaay bala euh, jéye di fa am samedi bi ñu génn nag njiitu réew mi Macky dalal na vingt deux députés yu Benno Bokk Yaakaar eh, yu bees yi nga xam ne kon fan lañ leen ci élection eh, législative eh, yi ñu ne nag ci daje boobu nag amee fale ca palais de la république jot nañ fa waxtaan waxtaan bu yàgg sax ñu ne mot na juróom-ñeenti waxtu ci ne nag ci biir waxtaan yooyu ñi nga xam ne ñoom ñooy député ya ñoom daal jox nañ seen kàddu njiitu réew mi ne ko daal li nga xam ne moom mooy ay xuloo yenn yi daal ñu doon nemmeeku ci assemblée bee ñu génn dinañ fexe daal ba loolu dinañ ko teg ci suuf ànd jiboo ngir mën euh, liggéey lu toll ci trent six employés dañ leen dàqee euh, fi nga xam ne moom mooy euh, entreprise bii di Expresso buñ sukkandiku na suñu naataango yu IGFM ñu ne nag gannaaw bi nga xamee ne sax euh, kii di directeur général ba def doon wax daal ne dina leen dàq ndax ay euh, jafe-jafe ñu am ci wàllu euh, koppar ñu ne nag ca ginnaaw gi daal la jël décision dàq leen mu ne pour faute lourde maanaam dañoo def daal ay faute bu mag a mag Euh, moom nag day reproché yooyu liggéeykat kii di directeur général ba ne ñoom dañoo daal euh, manifester ci kanamu li nga xam ne moom mooy bërëbu liggéeyukaay bi ci ñi nga xam ne nag dàq nañ leen bokk nañ ca ay list syndicaliste liggéeykat yoo xam ne ay syndicaliste lañ ñoom sax euh, dañuy daal ŋàññi kon doxalin bi nga xam ne kii di directeur général ba mu ngi koy doxal ñu ne moom sax dafa bëgg rek dàq leen ci loo xam ne sax tegu ko fenn. xibaaru Afrique dañ koy tàmbaleeg euh, Nations Unies bi nga xam ne bind nañ ab bataaxal kii di euh, ka jiite réewum Guinée di di Mamadi Doumbouya ñoom nag euh, ca bataaxal boobu daal ñu ngi cay daal ñu ngi koy artu ci kon li nga xam ne moom mooy àq ak yelleefu doomu aadama ni jàppee ne kon fi mu nekk nii dafa xaw a na sax foofule ca réewum Guinée gannaaw bi nga xamee ne kon ay manifestation Euh, yu bëri am nañ fa ak ay nit yoo xam ne dañ leen teg loxo kon ñu koy artu daal ngir euh, li nga xam ne moom mooy àq ak yëleef euh, wu doomu aadama ñu mun ko daal ñoŋal foofale ca Guinée. ca Kenya nag ki nga xam ne moom mooy opposant bii di Raila Odinga nga xam ne moom moo jël deuxième ci élection présidentielle bi moom nag bésub lënd bi bind na ab recours jébbal ko cour suprême ndax àndul ci résultat ya nga xam ne kon. moom la ñu joxe yooyu les résultat sax euh, dafa ne eh, ki fa nekkoon vice président te nekkoon it candidat di William Ruto moom moo ko jiitoo euh, lu toll ci deux cent trente mille voix loolu sax day tax kon ba Ruto day am cinquante virgule quarante pour cent moom moom la di Odinga am quarante huit virgule quatre vingt cinq pour cent moom Odinga nag euh, ci ci yooyu élection sax ki nga xam ne moom mooy président sortant ba kon da ko ci doon jàppale. dañ koy jeexal xibaar sport CNG de lutte ñoom nag euh, def nañ seenu bilan bu deux mille euh, saison deux mille vingt et un deux mille vingt deux euh, ñu ne nag jot nañu encaissé ci ay koppar kon lu toll ci cent soixante dix millions de francs CFA ñu ne ci yooyu la koppar dépensé nañ ca cent cinquante sept millions de francs CFA kon nag seeni kees douze millions moo fa des ba léegi nee nañ organiser nañ lu toll ci quarante cent quarante cinq Euh, journée yoo xam ne kon cent vingt huit écuries ñoom ñoo ca doon euh, jongante euh, wax nañ itam ci li nga xam ne moom mooy cachet yu mbër yi daal bu ko xoolee ci saison deux mille vingt et un deux bi toll na ci li xam ci li xam ne kon moom la xam toll na ci deux cent quarante quatre million quatre cent mille francs CFA wante itam ci li nga xam ne dagg nañ ko ay mbër ci ay pénalité toll na ci trente et un millions. de franc CFA CNG nag nee nañu saison bii di ñëw bëgg nañ ci indi ay coppite euh, bokk na ca ñu xool nan lañuy ñuy euh, gën a néewalee minute minutes yi nga xam ne kon mooy minutu euh, combat wu lii di mbër yi lii la ñuy nuyu tey ci xibaar dafa seen teewlu lu ñu jox daje ëllëg.